أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين لقن لساني واحللا منه العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبد واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu àq te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñu leen di ndokkeel bu baax ci atum lislaam mu bees mi nga xam ne ci lañu tàbbi di ñaan suñu borom subhanahu wa taala defal ñu ko atum jàmm waaye defal ñu ci ay xeewal yu bare bare bari waaye defal ñu ci tawféex ju yaatoo yaatoo yaatu bi jaahi cheikhul xadim radiallahu anhu ñu ngi ñëw di àndaat ak yéen comme ni ñu ko baaxoo defee rek ci ay bis bu jot di jàngatandoo ak yéen lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu te ñu tolloon ci téeréen bi nga xam ne moom la tuddee munawwiru sudur waaye ñu tolloon ci bunt bi nga xam ne ci la sëriñ bi di leeral li nga xam ne mooy maratibu tawba mooy martaba yi nga xam ne tuub amee na ko mu mel ni limoon na ci juróom-ñaar ne juróom-ñaari martaba yoo xam ne tuub amee na ko waaye ba nga xam ne moom la ci jëkk a tudd mooy tuub gi nga xam ne moom la yéefar bi di tuub nga xam ne yéefar bi la nga xam ne noonu la war a tuube wala na nga xam ne noonu la war a tuube ak la nga xam ne moo di ay bàkkaar ci moom ba mu war koo tuub ba ak tuubam ñu manis koo nungu loole leeraloon nañ ko ci bind bi nga xam ne moom la ñu weesu waaye tuubug aji sellal ji lan lay jàppe ay bàkkaar bu war ko tuub loola itam leeraloon nañ ko ci bind bi weesu waaye ki nga xam ne mooy aji maandu ji itam ci digganteem ak boroomam kooku itam am na ay njuumte yoo xam ne bu ko defee doonte ne njuumte yu ndaw la martaba ba nga xam ne moom la tollu moom mooy tax loolee daf koy jàppe ay njuumte yu rëy rëy rëy yoo xam ne daf ko war a tuub ci digganteem ak boroomam waaye ki nga xam ne mooy aji jaamu ji suñu borom bi subhanahu wa taala saa boo xamee ne def na ay njuumte ak i pakkasal yooye itam martaba ba mu toll day tax mu war koo tuub ci digganteem ak boroomam ki nga xam ne itam aji soobu la ci yoonu suñu borom bi subhanahu wa taala di ko jaamu ci ak sellal waaye di bàyyi xel suñu borom subhanahu wa taala di ko topp ci ak gëm ak wóolu waaye di ko topp ci ak wéetal bañ koo bokkaale ak dara itam kookee am na loo xam ne su fekkee ne def na ko daf koy jàppe ay bàkkaar yoo xam ne war na koo tuub ci digganteem ak boromam bi subhanahu wa taala niki noonu tamit ki nga xam ne mooy aji soobu ji wala aji sàmm ji ci digganteem ak boromam kooku lépp loo xam ne mooy bàyyi ko ci ak moom ba ci noyyi gi nga xam ne moom lay noyyi sax daf koy sàmmonte di fexe gépp noyyi goo xam ne moo génne ci bakkanam mu def ko ci loo xam ne lu neex yàlla la ba nga xam ne su ak noyyi goo xam ne génn na sax te demut ci lu neex yàlla su ko su génnee ci moom day jàpp ne loolee ay bàkkaar la waaye sànq waxtu la ci moom su ko defee yooyu yëpp daf koy jàppe loo xam ne ay bakkaar yu mag a mag a mag la mu war koo tuub ci digganteem ak boroomam ngir lan ngir martaba ba nga xam ne ca la toll loole tax loolee day doon ay bakkaar yu mag a mag ci ñoom kon loolu liñ ciy dégg rek mooy nit ki martaba boo xam ne moom la toll ci maraati bu taw ba yooyu rek am na bakkaar yoo xam ne saa bu ko fa defee rek loola day rëy lool ci moom ba mu war a wëlbatiku di ko tuub mu mel ne kon tuubu aji sàmm ji lan la jàppe ay bàkkaar ba war koo tuub ci bayit boobu foofu la ñu taxawoon ci suñu bind bi weesu sëriñ bi continué ba tey rek ci maratib yooyu nga xam ne moom la tuub amee mu ne wa tawbatul mushahidina ak tuubub way mushahada ñi mooy ñi nga xam ne dañoo am ak jege ak suñu borom ba mel ni dañ koy gis di ko teewal jëmmi suñu borom bi ci seen kanam nee na tajri yi seenu tuub ñoom dana daw min xafalaatil xal bi ci càggantee fi xol xaw fa zajri ngir ragaluk jajj ñi nga xam ne ñoom ñoom la suñu borom subhanahu wa taala dogal ñu nekk ñoo xam ne dañoo egg ci martabatul mushahada nga xam ne ñoom dañuy teewal jëmmi seen borom ci seen kanam mu mel ni ñoom bu ñu toogee di jaamu yàlla wala ñuy def dara suñu borom subhanahu wa taala day nekk ci seen kanam ñu koy gis ne na ñooñu seeni bàkkaar mooy lan mooy sàggante yi nga xam ne seeni xol da koy sàggan léeg-léeg di bëgg lenn loo xam ne moo jëm ci wala muy xelaat lenn loo xam xam ne moo jëm ci àdduna wala ñuy xelaat lenn ci am nooflaay loolee mooy bàkkaar yi nga xam ne al aji jegeñ suñ borom ji ba toll ci martabu boobu su defee bàkkaar yu mel noonu day doon bàkkaar bu mag a mag a mag boo xam ne war na ko tuub ci digganteem ak boromam ngir lan ngir martaba bi nga xam ne ci la toll kon xelaat li nga xam ne mooy am nooflaay rek wala xelaat lenn ci mbiri àdduna rek saa boo xamee ne ki toll ci martaba boobu def na ko loolee day doon ay bàkkaar yu mag a mag yoo xam ne daf koy jàjji waaye daf koy ragalloo ngir mu war a dëpp tuubalaat suñu borom subhanahu wa taala waaye gën a bàyyi xel suñu borom waaye léppam mu delloo ko suñu borom lépp lu dul yàlla mu génn ca loxoom waaye lépp loo xam ne moo aji ci wàllu àdduna mu tege ko fële te lépp loo xam ne moo aji ci jaamu gi nga xam ne moom la war a jaamu ci digganteem ak boromam ak sellal gam ko war a sellal ak sàmm ga mu war a sàmm loolu lépp daf koy boole dajale ko ci martaba bi nga xam ne ci la ne nga xam ne bu boobaa am xelam sax bu génnee tuuti ci jaamu gi nga xam ne moom lay jaamu yàlla wala wéetal gi nga xam ne moom lay wéetal yàlla bu boobaa loolee daf koy jàppe bàkkaar bu mag boo xam ne daf koy mitti lool muy toog di ko rëccu waaye di ci jéggalu suñu borom subhanahu wa taala ngir mu mën koo jéggal moo tax mu ne fa baadiri tawbata na nga gaawe ak tuub wal tamis te nga sàkku ar rusda njub ga min xabli xalqi baabiha ci njëkk ub ay buntam moom tuub yaamul tamit sew aji sàkku ji aw yiw ne na kon tuub nanga ko gaawe bu baax a baax a baax saa boo xamee ne def nga lu jara tuub wala def nga bàkkaar wala def nga loo xam ne jàpp nga ne li njuumte la ne na na nga gaaw nga tuub ko waaye na nga sàkku ak njub ginnaaw boo tuubee ba pare bul bul bul ginnaaw boo tuubee ba pare bul defati lenn loo xam ne ay bàkkaar bu mel noonu lay doon waaye na nga fexey ba gaawe tuub ga itam te nga sàkku ak njub te bul def lenn loo xam ne ginnaaw tuub googee dafa lay yóbbewaat ci bàkkaar bi nga xam ne moom nga defoon kon moo tax mu ne na nga gaawe ak tuub saa boo xamee ne def nga bàkkaar wala def nga fakka salu nga wala def nga njuumte loo xam ne da nga cee war a tuub ne na nanga ko gaawe bu baax a baax a baax te it boo tuubee ba pare bul sàkkooti lenn lu dul ak njub waaye it mi ngi lay digal ne la saa boo xamee ne def nga bàkkaar itam bul yéexe tuub ga waaye na nga ko gaawe ngir lan ngir ne su fekkee ne yéexe nga tuub mën naa dem bañ të tëj buntu yi nga xam ne ci nga waroon a jaare ngir tuub waaye buntu yi nga xam ne moom la la suñu borom subhanahu wa taala ubbi leen ngir man laa jéggal say bàkkaar yooyu yëpp mën nañoo dem ba tëj ko te bu boobaa ci réccu rek ngay daal di mujje moo tax mu ne wa dax na nga bàyyi anka walif yow but an ak yeex maa takasuli ànd ak tayyel wa danasal israari ak tërub nuur ci ay bàkkaar wax sil te nga raxas danasal israari tërub nuur ci ay bàkkaar bi siddaxi ci dëggal ak dëggu moo tax mu ne wa dax na nga bàyyi anka walif la but an ak yeexa ak yeexe maatakasuli ànd aku tayyel wax sil te nga raxas na nga fóot danasal israari tërub nuur ci ay bàkkaar bi siddaxi ci ak dëggu ak dëggal kon ne na yow mi nga xam ne yaa def ay bàkkaar wala yow mi nga xam ne yaa def ay njuumte wala yow mi nga xam ne yaa def ay fakkasal ci sa diggante ak sa borom war koo tuub nee na mi ngi lay moytandikuloo nga yeexe tuub googe wala ngay tàyyeel di nit nigal naa day bàyyi da ngay bàyyi ba su suba wala da ngay bàyyi ba waxtu sàngam ngir nga mën a tuub nee na loolee bul ko def waaye saa boo xamee ne def nga bàkkaar boo xam ne dañ koo war a tuub nee na ca saase na nga jug jug daal di koy tuub waaye bul téye bàkkaar boobee waaye bul ànd ak bàkkaar boobee dund ak moom di ko wutal waxtu woo ko war a tuub waaye ca saase rek fa nga ko defee na nga wëlbatiku daal di koy tuub nee na it na nga raxas tërub nuur ci ay bàkkaar na nga ko raxas ci ak dëggu waaye na nga ko raxas ci ak dëggal sa diggante ak sa borom li nga xam ne mooy ay bàkkaar saa boo xamee ne def nga ko la nga xam ne moo moom nga koy raxase rek mooy tuub gi nga xam ne moom nga tuub sa diggante ak sa borom mu doon tuub gu dëggu ci yow waaye mu doon tuub goo xam ne dana la def nga bañ a dellu ca bàkkaar yi nga xam ne moom nga defoon kon yooyu itam yu ama am solo la yoo xam ne saa bu nit ki juumee wala mu fakkastalu ba def loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koy tere mu fexey daal di tàbbi ca tuub googee ndax loolee moo koy dimbali waaye it gaaw gam koy gaawee loolee moo koy mën a may ak mucc moo tax mu ne fal xaaliku aji alku ji asaqiyu aji texeedi ji jiddan lool man mooy ki nga xam ne xaraja génn na min haadihi dunya ci jiile àdduna bi zanbin ci ay bàkkaar wa xaraj ak i tooñaange min xabli tawbatin li ci njëkk ak tuub na sooxen gay aji sell lil ali ñeel aji kaweja subhanahu tudd naa sellam nga rabban buur la ali goj kawe na li kursi yin ñeel seesam ba kon nee na ki nga xam ne mooy aji alku dëgg ki nga xam ne mooy aji texee di dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ne moo génn fii ci àdduna yore woon ay bàkkaar yore woon ay tooñaange yoo xam ne daf koo tooñoon suñu borom subhanahu wa taala mu génn àdduna te tuubut bàkkaar yooyee waaye njuumte yooyu nga xam ne moom rek tuubu ko tuub gu sell sell ba suñu borom subhanahu wa taala jéggal ko kon képp koo xam ne da nga amee ay bàkkaar di niig niigal wala ngay soobental ba tuuboo ko ba faatu génn ak moom àdduna nee na kookee dëgg mooy ki nga xam ne mooy aji tex texee di waaye mooy aji alku kon aji texe tey aji sorente ak li nga xam ne mooy alku mooy ki nga xam ne moo def ay bàkkaar ba pare gaaw ci tuube ko waaye bañ caa dellu ngir lan waaye loolu lépp daf koy def ngir jublu ci jëm yàlla ji nga xam ne mooy suñu borom subhanahu wa taala mu màgg mi rek kon nit ki bu mu def ay bàkkaar mukk ba yeexe ko fii ci àdduna ba leneen di ko ca fekk waaye saa boo xamee ne def na ay bàkkaar na fexey tuub ko sellalaat ci digganteem ak boroomam waaye la nga xam ne moo doonoon ay njuumte mu fexey bañ caa delluwaat moo tax mu ne kon aji texee di ji waaye aji alku ji dëgg-dëgg daal mooy ki nga xam ne fexey na ba génn fii ci àdduna yóbbaale ay bàkkaar yoo xam ne ci digganteem ak boroom la woon boroomam la woon waroon koo tuub tuub gu sell te tuubu ko te loolee lépp la ko yëpp mooy ak tàyyeel ak yeexe ak tuub rek moom moo ko moo ko teg kon nit ki njuumte mënta ñàkk nit ki mën nay def ay njuumte waaye nit ki mën nay def ay bàkkaar waaye saa boo defee bàkkaar bul bul bul bul bul naagu mukk ne damay def bàkkaar bi suñu borom subhanahu wa taala du ma jéggal wala bàkkaar bi dafa rëy suñu borom du ma ko jéggal ndax suñu borom subhanahu wa taala moo ne laa taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaxfiru zunuba jamia bu leen naagu mukk ci yërmande suñu borom subhanahu wa taala ndax moom yërmandeem yaatu na yaatuwaay goo xam ne ñëpp xaj nañ ci kon bu ko kenn xatal di wax ne man de damaa def bàkkaar bi jàpp naa bu ma ko tuubee suñu borom du ma jéggal waaye bépp bàkkaar boo xam ne doomu aadama bi def na ko na fexey tuub ko te sellal tuub ga te fas yéene bañ caa dellu saa bu ko njuumte dalee nag ba mu dellu ca bàkkaar booba itam mu wëlbatiku rek daal di koy tuubaat te sellalaat digganteem ak boroomam xam ne suñu boroom subhanahu wa taala ci ay yërmandeem ak kii ñeewante gi nga xam ne am na ko ci jaam yi bépp bàkkaar boo xam ne doomu aadama bay def na ko suñu boroom subhanahu wa taala mën na koo jéggal kon nit ki bu mu génn mukk àdduna yoraale ay bàkkaar yoo xam ne ci digganteem ak boroomam la te mënoon koo tuub te ak yeexe ak yeexe ak tayyel rek moo moo moo ko tere tuub loolu dara jëru ko ci àdduna waaye dara jëru ko ëllëg yawmal xiyaam kon ñu ngi tuub bu baax te jégglu di wax ne lu ci jub rek ci ndimbalal suñu borom subhanahu wa taala la lu ci dëng ñu ngir xam ne ci jàmbu xeebu bi doon taxawee émission bi la di wax ne in uridu illa lislah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu